bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyai walmursalin sayyidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu alcuqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen balu aq di leen baal di ñaan suñu boroom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànde ak yen ci suñu jataayu xam-xam yi amal ci ay bis bu jot te di ci ànd ak yéen di ci fat leen teendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu doon ànd ak yéen ci suñu jotaay yi mujj yépp ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu euh, bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqu niiraan ci suñu bind bi weesu ñu ngi taxawoon fi nga xam ne foofu lañu bi radiallahu anhu doon leerale yenn ci mbon mbon wala ñaawteef yi nga xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala daf ko araamal waaye sëriñ bi leeral ñu ne ku sax ci ñaawteef yooyu te bàyyiwoo ko bu ëllëgee man na la yóbbe sawara waliyasu billah kon bayit bi nga xam ne moo ci mujjoon ci fi ñu taxawoon ci suñu bind bu mujj mooy fi sëriñ bi doon wax ne kal akli bi diini wa bi safaa wa hakaza taxiiru fi'l taa yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko aramal muy ay ñaawteef yoo xam ne ku ko saxal di ko def ëllëg mën naa tax boo dajee suñu borom bi subhanahu wa taala mu mbugal la kon suñu bindu tay fi muy tàmbalee mooy fi sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne wala takun bul nekk mu axira salaati di aji yeexi julli an waxtiha waxtoom bi xayri uzrin ci lu ngant yati goog dana dikk sëriñ bi radiallahu anhu nee na bul yéexe julli mukk maanaam waxtu julli bul ko yéexe mukk lu dul ne ngànt daf ko waral saa boo xamee ne waxtu julli jot na te amu lenn ngànt lu la te julli sëriñ bi radiallahu anhu nee na na nga te nga gaaw jooxe julli ga ndax lislam dafa doon diine joo xam ne Euh, lu nekk daf ko wutal waxtu kon waxtu wa nga xam ne moom la ko wutal rek mooy waxtu wa ñu tànn su ko defee ci waxtu woowee nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa euh, jox ko ca day gën jox ko ci weneen waxtu waaye jox ko ca day war su fekkee ne amoo benn ngant bu la ko teree def kon julli dafa am waxtu euh, ci julli julli yi nga xam ne mooy julli juróom yi yépp benn bu ci ne am na waxtu woo xam ne moom lañu ko wutal mu am lu ñuy tudde muxtaar nga xam ne ku amul ngànt ci nga war julli waaye am lu ñuy tudde daruri yi nga xam ne ku am ngànt loo xam ne moola la julli ci muxtaar mi euh, nga mën a julli ci daruri mi kon sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul yéexi julli mukk ba waxtoom génn te loolu itam suñu borom bi subhanahu leeral nañu ko ndax leeral nañu ne julli day maanaam lu war la loo xam ne dañ koo waral ci jullit bi mu war koo def waaye nag dafa doon loo xam ne dañu koo wutal waxtu dañu ko wutal waxtu woo xam ne ca la ko war a defee ndax su fekkoon ne da nga bëgg julli ak loo bëgg julli bëgg julli te waxtu julli wi jotul soo jullee itam du wér kon dañ ko wutal waxtu waxtu woowu yi nga xam ne moom lañ ko wutal nag euh, jullit bi daf koo war a euh, saytu waaye di fexey bay Euh, bàyyi xel waxtu yooyu ba saa bu jotee mu man koo joxe moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne inna solata kaanat alal muminina kitaaban mawquta julli day doon na loo xam ne dañ koo waral ci jullit ñi dañ koo waral ci way gëm ñi waaye mu doon jaamu yàlla goo xam ne dama ko wutal waxtu sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ci euh, tazawudu sixaar ne walam bi anna salawaat alxamsa faridatan qataan wuqiita labsa na ngeen xam ne julli juróom day faratala ju dog joo xam ne dañu ko uh, waral ci jullit bi mu war koo jox ci bi zikri nag ci alquran wa sunnati ak ci sunna wal ijmaa ak ci dajaloog boroom xam-xam yépp kon yooyu yépp saxal nañ ne julli farata la ju war joo xam ne jullit bi daf ko war a def waaye doomu aadama bi eh, warna na koo jox yitte ba saabu waxtu wa jote mu def ko eh, mu ne nag waman yakun lahu alamtinaai jaxdan fa huwa kal murtaddi fil xukmi yustadaabu jiimal addi foofu sëriñ bi radiyallahu daf ñu fay leeral ci eh, tazawudu sigaar ñi nga xam ne noonu la julli waree ak Euh, dalil yi nga xam ne moo ci am ci alquran waaye leeral itam ne lu war la te sunna saxal na ko waaye leeral itam ne li nga xam ne mooy dajaleeg boroom xam-xam yépp saxal nañ ko mu leeral ñu itam ne képp koo xam ne nag da nga bañ a def te weddi julli rek moo tax nga bañ koo def euh, atte ya nga xam ne moo ci aju sëriñ bi radiyallahu anhu na ko foofu ba leeral ko Euh, nga xam ne dañ ko war a rey jàppe ko ab yéefar moom mi nga xam ne dafa weddi julli te weddi ko rek tax euh, bañ koo gëm rek tax waaye ki nga xam ne nag dafa saxal ne julli moom lu war la waaye daf ko bañ a def kooku itam sëriñ bi radiyallahu anhu andi na ci leeral ci tasawudu euh, sixaar ni nga xam ne noonu lañ war a jëflantee ak kooku kon loolu limu mu ñuy won rek mooy def ñuy won ne julli lu màgg a màgg la waaye julli Euh, lu mat a bàyyi xel la waaye julli lu jara yittewoo la waaye nag rawatina su waxtu wa jotee su fekkee ne amoo benn ngànt nga joxe ko ca waxtu wa ndax su fekkee ne waxtu wi dafa jot amoo ngànt lu la ko teree def nga yeexe ko ba waxtu wa génn loola boo ko defee itam ak fay lay tudd te bu boobaa itam dana la jural ay bàkkaar kon loolu moo tax nit ki war a farlu bu baax a baax a baax ci waxtu julli yi waaye bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, waxtu yi nga xam ne ci la ko suñ borom farataal ba saabu jotee mu man koo joox su amul benn ngant ndax julli dafa bokk ci ponki lislaam yi waaye dafa doon keno gu màgg a màgg goo xam ne moom moo ñuy tàqale ak ñi nga xam ne ñooy euh, yéefar yi nga xam ne gëmuñu suñu borom subhanahu temps taala li ñuy tàqale suñ diggante ak yéefar yi ñu mën a xam xàmmee ab jullit akub yéefar Euh, joox julli la ndax nit ki su fekkee ne julliwul deful dara euh, tey ne ab jullit la daanaka pour nga man koo ràññeetle ak ku doonutu ab jullit xaw naa mën a jafe lool euh, te yonente bi sallallahu mi ngi wax ci xadis ne ci ponk lislaam nga xam ne moom la tënki xadis boobu boo ca demee ma nga ciy tudd julli iqaami salaat wa itaay zakat ba xadis ba jeex kon loolu li muy tegtale mooy julli ponk la ci ponki lislaam yi di ponk boo xam ne bu ama am solo la te yonente bi waxaat feneen ne asalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin julli day uh, keno la gu rëy ci diine goo xam ne ku ko taxawal rek mel na ni taxawal nga lépp diine waaye ku ko màbb itam mel na ni màbb nga lépp diine kon Euh, moom julli moom lu ama am solo la ñu war a saytu bu baax a baax xam li nga xam ne mooy waxtu yi nga xam ne ci lañ ko war a jooxe euh, su ko defee bu waxtu yooyu jotee ñu bañ ñu jooxe ko ngir lan euh, ngir ñu bañ a am bàkkaar waaye ñu jëfee ndigali suñu borom bi subhanahu mi nga xam ne moom moo ko wutal waxtu te digal ñu ñu koy jox ci waxtu woowe mu ne wala tuhin bul doya dal wala tuhin bul doya dal musliman ab jullit laatan xar bul eh, bul gëdd musliman ab jullit wala ta subba te bul ŋàññ musliman ab jullit wala tu xawif te bul ragaloo musliman ab jullit watub na nga tuubal minhu ñeel ko saa boo xamee ne yooyu benn eh, ci yooy gaar na la maalam yakun li feeg nekkut li ajli xaqin chariyin ngir àqi sarian ngir àqi diine amaalahu ndaal su fekkee ne àqi diine moo tax nga def yenn ci yemula tere mooy gëdd ab jullit wala nga doyadal ko wala nga ŋàññ ko wala nga euh, ragalloo ko yooyu yëpp su fekkee àqi sariya moo tax nga def ko dina falayura yura deefut gis za manain di boroomu tere maanaam su fekkee ne li la ko tax a def àqi sariya moo tax nga def ko nee na loolu bu boobaa kenn du la ko aaye waaye nag bul yeemula tuddal yëpp limal la ko nee na bul ko def ab jullit mukk euh, te lenn euh, diine taxut waaye sa yëfi bopp rek moo tax bul gëdd ab jullit euh, bul ko dal waaye bul ko ŋàññ bul ko tiital ci loo xam ne ak charian taxut waaye yooyu yëpp saa boo xamee ne juum nga ba def ko ab jullit te lislaam taxut ak charian taxut yàlla taxut bu boobaa na nga wëlbatiku tuub euh, te jéggulu ko waaye nag su fekkee ne li tax nga def koy benn ci yooyu lislaam moo tax ak sharia moo tax nga def ko ko bu boobaa nag nee na loola kenn du ko tere moo tax mu ne wala tuhin bul doya dal laa tanhar laa tantahir bul gëdd wala ta subbu bul ŋàññi wala tu xawwif bul ragaloo musliman ab jullit yooyu yëpp daf lay tere nga def ko ab julit nee na nag xamee ne Euh, njuumte gaar na la ba nga def ko benn ci yooyu watub na nga tub nag minhu euh, ca moom maanaam na nga ko tuubal maalam yakun li feeg nekku nag li ajli xaqin charia yi yéen loo xam ne dafa aju ci àq charia amma lahu ndaal loo xam ne dafa aju ci àq charia nag fala yura deefut gis zamanaañ bi boroomu tere kon ki ngay gëdd euh, mu di ab jullit wala ki ngay doyadal mu di ab jullit wala ki ngay ŋàññ mu di ab jullit wala ki ngay ragalloo di ko tiitloo mu di ab jullit euh, su fekkee ne àtte charia moo tax nga def ko day loo xam ne charia moo ko digle moo tax nga def ko bu boobaa loola kenn du ko tere waaye nag su fekkee ne lislaam taxul nga def ko charia taxul nga def ko ne la loolee dañu koy aaye waaye dañu koy tere te loolu suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko jëkk ay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mi ngi koy wax naa fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar ab ab jirim day bul ko bul ko bul ko gëdd maanaam bul ko gëdd wa amma sa'ila fala ab laajkat itam bul ko bul ko gëdd fala taqhar wala tanhar bul gëdd ab jullit bul gëdd bul bul not ab mis ab muy koo xam ne ab jirim la waaye itam ki nga xam ne dafay laaj nena bul ko gëdd mukk soo fekkee ne am nga ko jox nang ko euh, dimbali jox ko sarax ko waaye su fekkee amuloo ko jox amuloo ko sarax nee bu boobaa bul ko gëdd waaye na ko wax wax ju rafet te boo demee ci alxuraan itam bam ñuy digal ci nu ñu war a toppe suñu waa ñaari waajur ma ngay wax naa ñoon bu leen leen gëdd mukk waaye bu leen leen wax sax uuf kon loolu li muy tegtale mooy Euh, bokk na ci li jullit bi war a sàmmonte ci diggante euh, mbokki jullitam te ay àq yoo xam ne dafa dox seen diggante mooy mu bañ koo def yenn ci yemu la limal euh, ti loo xam ne àqi lislaam taxut waaye àqi sariya taxut ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ko jëkk ay yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax mu waxaat ci masalik ne wa ka ixtiqaarihi wa kal ihaana wa kal wal xiyaana soo demee ca bunt ba nga xam ne foofu lay limee ñaawteef yi nga xam ne dañ ko war a moytandiku ma nga cee lim ne euh, bul euh, tuutal ab julit bul ko xeeb waaye bul ko doyodal euh, bul ko wor waaye bul ko teg lenn loo xam ne àqi lislaam taxut kon yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax di doyodal ab julit wala nga koy xeeb wala nga koy nga koy koy reetaan wala nga koy wor yooyu yëpp uh, ay ñaawteef la yoo xam ne jekkul ci diggante nit ki ak moroomam julitam te sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko bu baax a baax a baax ci uh, am mbindam waaye jële ko ci alquranul karim waaye jële ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa uh, sallam mu ne wax xifduna suñu wattu al alsuna làmmiñ ya min faxsha ci ay ñaawteef aw jabahu waral na ko aljabbaaru aji not ji zu sama i boroom asamaan yi nee na wattu gi nga xam ne moom lañu ñu war a wattu suñuy cër ci wattu gi ñu war a wattu suñu làmmiñ ci ay ñaawteef nee na loolu day mbir la moo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo waral ci ñun maanaam wattu gi ñu war wattu suñu làmmiñ warteef la joo xam ne nit ku ne dafa war a sàmm aw làmmiñam waaye war koo wottandiku bu baax a ci lépp loo xam ne moo mën a jur ñaawteef wala lépp loo xam ne ñaawteef la ndax suñu borom bi subhaanahu wa taala moom moo ñu ko aaye te moo waral ci ñun ñu war koo moytandiku waaye war a moytandiku war suñu làmmiñ ci lépp loo xam ne ñaawteef la moo tax mu ne wa xifzuna sunu wattu al alsuna làmmiñ ya min faxsha in ci ñaawteef aw jabahu waral na ko al Euh, aji euh, not ji ju sama te mooy borom asamaan kon euh, làmmiñ yitam bokk na ci li nga xam ne nit ki war na ko téye waaye war na ko moytandiku su fekkee ne munu cee tudd li nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala wala mu ciy jéggalu suñu borom bi subhanahu wa taala wala mu ciy jàngalu mel ni alquran wala mu ciy julli ci yonente bi lépp loo xam ne lu baax la bu ko ci mënta def rek moom dafa war a wattu làmmiñ wa euh, bala mu tàbbi ci loo xam ne ñaawteef la koy jural waaye mu tabbi ci loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko aaye moo tax sëriñ bi doon ñu digal itam ci nax ju xabail xaaj ne na nga tàmmal saw làmmiñ lu baax ne na ndax aw làmmiñ te li nga ko tàmmal rek loolu lay loolu lay tàmm te loolu rek lay lay lay lay man di wax kon koo gis muy wax wax ju ñaaw wala muy wax ay ñaawteef daf ko tàmmal aw làmmiñam tax làmmiñ moom loo ko tàmmal rek moom lay tàmm euh, boo ko tàmmalee tudd ay bi nit loolu lay tàmm di ko tudd waaye boo ko tàmmalee wax aw ñaawteef loolu lay tàmm di ko wax kon nañu fexee di tàmmal suñu làmmiñ yi euh, wax ju rafet waaye nañu tax fexee di tàmmal suñu làmmiñ yi wax joo xam ne euh, danañu mën a jariñ waaye dana mën a jariñ doomu aadama yi moo tax sëriñ bi ne ci nax ju awid lisaanaka xawlal xayri toxza bihi inna lisaana lima wata yataadu na nga tàmmal saw làmmiñ wax ju yiw wax ju baax nee na soo ko defee day danañ la ci xejjal maanaam danañ la ci defal tawféex waaye danañ la ci da ci tuufu da nga ci gañe ndax aw làmmiñ da la nga ko tàmmal rek moom lay tàmm mu waxaat itam ba tey ne lisaanaka la tazkur bihi awrata mri'in fa indaka awratun walinnaasi alsun nee na saw làmmiñ de bul ci tudd awraynit nit awra nag mooy lépp loo xam ne moom la nit di bañ ko ko tudd ci moom rek nee na loolu awra la ci moom nanga ko bañ a tudd nanga ko moytandiku te bañ koo tudd ndax ni nga xam ne noon nga amee aw làmmiñ du tudd awraay nit yi noonu la nit ñi itam amee aw làmmiñ nga am ay awra ñu mën koo tudd kon loolu moo tax nit ki war a bàyyi xel bu baax a baax lépp loo xam ne moom nga gis ci nit te xam ne boo ko tuddee mu naqari ko euh, na nga fexe téye saw làmmiñ ba bul ko tudd na nga fexe téye saw làmmiñ ba bul ko tudd moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñu digal ne képp koo xam ne danga gëm yàlla te gëm bis penc nee na na ngay wax aw yiw te noppi maanaam boo waxee aw yiw ba pare nga noppi bañ caa teg leneen mun kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaxul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla te gëm bis penc na ngay wax aw yiw te boo ca pare eh, nga noppi boo ca pare eh, nga noppi aw làmmiñ nag li nga xam ne moom la mën a def ci ay ñaawteef wala mu mën koo wax ci ay ñaawteef yu baree baree bari la eh, te boo demee ci masaalik ci faslun fi razail mooy bunt bi nga xam ne fa la sëriñ bi radiyallahu anhu tënkee ay ñaawteef yoo xam ne cëri cëri doomu aadama bi mën na koo def boo ca demee am na lu ca sëriñ bi euh, tudd moom la doon wax naa waxas sama suufiyu lil xismayni tilka razaila bi xayri mayni zahiratan wa batinan fa zahira hiya xaraamun fatlu bil mubadara mu ne nag fa waajibun ala mukallafin aqal war na ci bépp euh, mukallaf boo xam ne xelu na am na am xel alkafu anha xawfa rabbi naasi jàll mooy mu fexey ba fegu ci Euh, ñaawteef yooyu nga xam ne dafa am yu nëbbu yoo xam ne ci biir xolub doomu aadama bi lay ne waaye am ci yu feeñ yoo xam ne ci cëri doomu aadama bi moo koy euh, def ngir lan ngir ragal goo xam ne moom lay ragal suñu borom mi nga xam ne moo sàkk doomu aadama yépp kal xiibati ni ki jëw jëw aw làmmiñ moo koy def namimatun rambaaji aw rammi aw làmmiñ moo koy def wa kasibun ak wax euh, lu juuyoo ak dëgg wa xaanisil yamini ak Euh, firi ngiñ ah, maanaam giñ ba pare mu deñ wataasu sobi yooyu yëpp ay ñaawteef la yoo xam ne euh, làmmeñ euh, moo ci def lu bëree bari yu ci bëree bëri ay ñaawteef la yoo xam ne làmmeñ moo koy def sëriñ bi nag radiyallahu anhu leeral nañu ñaawteef yooyu waaye ñu war moytandiku bu baax a baax ba suñu làmmiñ bañ cee bañ koo tàmm di ko def wa zuuri Euh, niki noonu mooy duur wal faxshaay ak ay ñaawteef wa maa laa yaani ak lépp loo xam ne du jariñ min xawlin ci wax aw fi'lin wala jëf wa maa laa yuxni ak lépp loo xam ne mënta indi doomu aadama bi njariñ yooyu yëpp euh, euh, nit ki daf ko war a bàyyi xel waaye war koo moytandiku ngir ay ñaawteef la yoo xam ne du la jural mukk njariñ waaye la mu lay jural rek mooy Euh, ay bakaaro lay jural waaye la mu lay jural mooy ay noon ak noonoo la lay jural ak nit ñi waaye la la lay jural mooy ëllëg mbugalal suñu borom bi subhanahu wa taala kon loolu moo tax nit ki war a bàyyi xel ñaawteef yooyu nga xam ne euh, ëllëg mën na ko jural ay jafe-jafe mu sàmm aw làmmiñam waaye sàmm ay cëram yépp euh, te di bàyyi xel ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala di ko taxaw ñi ngi tuub bu baax a baax di jéggulu di wax ne in uridu illa al-islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sëriñ bi dañoo sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey